asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi fas yéene ànd ak yéen ci taarixu Mbàkke Kajoor li dëkk boo xam ne nii nag képp ku ko dégg rek sa xel day daal di dem ci yoonu murit dina ànd ak yéen itam ci lenn ci taarixu maam Cheikh Ibrahima Fall foofee ca Mbàkke Kajoor raawtina nag ak njébbalum gannaaw ba mu giseen teeg Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim foofee ca dëkk ba ak la ca aju danañ ànd ak yéen itam ci jaar-jaar ak lenn ci dunduk Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbacke Xaadim Rasoul moom mi nga xam ne gannaaw ba mu feeñee jamono fii ci Touba Serigne Touba Cheikhul Xaadim da koo jox ndigal mu dellu foofee ca Mbacke Kajoor kon liggéey bi ay mbokki taalibe yoo xam ne nii seen gëstu lépp dañ ko jëmale ci liggéeyal Serigne Touba Cheikhul Xaadim ñoo lëkkaloo ak ay kilifa yoo xam ne nii seen xam-xam ràññeeku na lool ci yoon wi ngir indi leen nag lii nga xamante ne nii moo seen jullit yi bokki taalibe yi daa am tuuti lu ñuy leeral ci taarixu mbàkkaar yu nekk dëkk bi 1880 ci lañ ko sanc Mor en 1880 ginnaaw bu mu bàyyi ko ci maba jaxu ànd ak lat jor ndax xam ngeen ni maba dafa wote woon maanaam kilifa yu bëri yoo xam ni kilifay lislaam lañu euh, foofee ca ñoro ngir ñu jàppale ko ci lislaam maamor ant sëli daa bokkoon ci kilifa yi nga xam ni demoon nañ ñoro ci ba maba di wote jihaat bam fa nekkee nga xam ne maba jógee na fa Lat Joor sàkku ci moom mu nekk ak moom di ko atteel ci lislaam Maamor Anta Sali nag bokkoon ci borom xam-xam yi gënoon ràññeeku nga xam ni ci wàllu atte sax da cee xarañoon bañ xam ko ci maba woon ko ngir mu ko jàppale ci lislaam ci fànn googu Lat Joor itam bi mu demee dem tuubi woon ci Maba Jaxu euh, ba war a ñibbisi si Kajoor ci la waxee Maba ni ko su ma sañoon euh, ma am koo xam ne dafa may jàngal sama lislaam ba noppi di ma atteel euh, ci biir loolu la fi ñuy waxtaane loolu ci la Mamor ci la Mamor Anta ñëw dugg si ci biir néeg bi bi mu duggee ci néeg bi maba ni ko ah de sama mbokk la mu ko sama mbokk la way la doon ko sama mbokk la way sama xarit la itam ci bir lolou ko maba bolé ak mom ñu ñibi ci kadior bala jor demé nek kër amadou kër amadou yalla serin bi imam lam koy don don ku koy teg ci yoon l'islam ci ko atel attel taxut nag mu nga bok ak moom benn dëkk kon daara daara lañ yor te sëriñ dara mu tut bok ak bu nek e eh, kon foko ma am sama suus bop fo xamni fa lay nek difa jangale ci lako jëkke indi fi eh, bu ñëwé sax dekk bi ñu wax eh, ngébbal ci wetu manan so ci di ñëw daru manan soo génnee ngébbalu toll ci juróom fukki mètre sa càmmoñ di nga fa gis benn néeg bu ñu tabax foofee la Maam Mor Anta Sali jëkk wàcc Cheikh Sidi Mokhtar moo ma ko waxoon. moo tax ba mu nekkee kër Amadou sëriñ nekk Pataar Pataar mu ngi ci boori Njaañ Njaañ Njala bu àtte jotee mu ñëw àtte delluwaat dara di jàngale. di jamonoy dox dox bala joor ñëw sugeer capitalu ñu koy war laal ci seen nguur googu ba mu nekkee suwer nag mu ne ko dama bëgg nga may ma ak mbàkke ci kajoor mu ne ko am na suuf soo xam ne di suuf xëy njëbbal da tudd suuf la soo xam ne dafa dem ba moomee la mujj ci jigéen loolu nag fu amee buur moo moo ci rek loxoom bi fa wacce dal dafa gis njeexiti ñu fa dekkoon euh, mu wax la jot barom ko dilusi. naa lu yag yag seen borom danañ delu ci kon nañ ma xolal feneen ci la andu tuti wetu ci la dal di koy wutal mbacke kadjar gogu en 1880 ci lako Mamour Anta Sali sanc di fa jàngale euh, ci bir jangale mi tam man nañu wax ni kangam yu bari ci senegal ay kilifa yu yu mag jaar nañ fa ku mel ni euh, tafsir Iliman Sakho di maam yi sëñ Abib Sakho jaaroon na fa sëñ Abdou Cissé jaamal ak rakkam sëñ Abdou Cissé Pire itam ñoom ñëpp jaar nañ foofu ci jaare Maam Mor Anta Sali kon jamono jooju bokkoon na ci daara yi gën a mag ci Sénégal. ba yàlla def ba nuy dox ba fi ñaari at sëñ ci boo xam ne dafa ci biir àll. duy taalibe lu may jàng ay jàngal kat ñoo fi ne booba ku ci mbokkal wala nga am la yu ci xam-xam da ngay dellu loolu moo ko moo tax mu doon daara rek bi mu fi amee ñaari yàlla moom ko. Maam Mor Anta Saly nekk fa noonu ci ab diir euh, ba 1883 ci la génn àddina bi mu génnee àddina itam sëriñ bi daal di ko yóbbu deqale denc ko fa euh, dal di taxaw wóotu ko ci daara ji di jàngale. waaye ci diir bu gàtt ci pas-pasam moom sëriñ bi ak farloom digganteem ak boroomam eh, sayyiduna muhammadin ali salaam feeñu ko ni ko eh, bul yamaati rek ci am njàngale waaye na ànd ak taalibe ci pas-pas bi nga xam ne ku ci aw di nga àgg ci sa boroom eh, ni nag sunna si sama boroom jox na ma ndigal tey ma teg ko sa loxo nga nga yeesal ko ci la wooyee taalibe yëpp ba ñu ñëw mu wax leen ni képp koo xam ni am njàngale kese moo la fi andi woon mën ngaa dem seeti feneen waaye koo xam ni bëgg nga li ma bëgg man ngaa toog te dox sama doxin mel sama melokaan ci la waxe ni shaafahani rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallama bi xawlihi rabbi asxaabaka bi himmatin wala turabi bi dar si faqat mooy li ma jikkoon wax ànd ak yar leen ci pas-pas te bañ a yem rek ci am njàngale muy nag daal ni man arade nag ma araada naa fal yasir bi saydinaa ke xam ni bëgg nga li ma bëgg na nga dox sama doxin daal di ni lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatawul xarraa wa inni ahmadu daal di ni diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu dama yeesalaat sunna saydinaa moom salaatu alayhi wa sallam moo tax a jóg ci biir loolu nag mu daal di donn yonante bi la ko yàlla waxoon ci alquranul karim wax ni yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhi alwasila yéen nit ñi jullit yi nga xam ne gëm ngeen yàlla na ngeen gën a ragal seen borom te wut wasila wasila nag liñ ci gën a xam mooy lépp lu la mën a àggale ci suñu borom wala foo mën a jaar ba àgg ci sa borom wala koo mën a jaar ba àgg ci sa borom waaye liñ ci gën a min mooy jëmmi doomu aadama koo xam ni moo la gën a jige yàlla gën la koo xam gën la koo ragal man laa teete ba nga àgg ci suñu borom te suñu diggante suñu borom daa bari ay pakk bari ay gàllankoor nga am fokk na nga am ku lay dindil gàllankoor yooyu ak pakk yi ba nga àgg ci suñu borom. moo tax bi loolu amee saxaaba ya commencé tàmbale jaayante sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ni euh, ku ku aw ci yoonam mu àggale ci yàlla ni nga ko bëggee bi ñu jaayantee ba noppi nag yàlla àdduwaat ni inna allaha euh, daal di wax ni laqad radiyallahu anil muminina is yu bàyyiwunaka taxta shajarati jaayante gi nga xam ne saxaaba ya jaayante nañ ko ak yow ci ron garab bi suñu borom gërëm na ko ànd na ci daal di leen li fay gi nag mooy li ngeen jaayante joxe seen bakkan ak seen alal ak seen lépp àjjana àjjana la ko suñu borom di faye mooy inna allah shara min al muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna tekkelam ci teg yëpp benn nga rey ci xeexu yàlla ci xeexu lislaam nga reyee ci mbaa ñu rey la ci yëpp aljana la ko suñu borom fayee moo wax waral ñu naan ku jébbalu da ngay dem aljana suñ borom moo ko wax ci alquran waaye du waxe murit ak njébbal itam sëñ waa daf ko sosu ko da ko doon ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mooy loolu ma wax bi mu waxee loolu nag taalibe yi nekkoon ci moom ñu daal tàmbalee jaayante ak sëriñ bi tàmbalee sëñ Adama gi ñu njëkk a sukk jébbalu ci moom ñëpp daal di commencé jébbalu nag ba toll ci ñaar fukki góor ak juróom fanweeri góor ak juróom-ñeent maam Cheikh Ibra Fall ñëw ñeent fukkeel leen loolu lépp ci Mbàkke Kajoor yor yor mu daal di judd c'était 1983 bi mu juddoo itam alhamdulilahi rabbil alamina mu teg leen ci yoon boobu nga xam mooy yoonu pas-pas bi sëriñ bi itam cosaan Mbàkke Kajoor googu kon foofu la yoonu murid juddoo sayiduna muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam itam foofu la jëkk a feeñoo sëriñ bi Euh, sang bu tedd bi itam di Momar Anta Sali waajur Cheikhul foofu la génne àddina taawu sëriñ bi di soxna Faati Dia it foofu la ganee àddina Cheikh Sidi Maxtaar mii di xalif foofu la ganee àddina euh, Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waajur yi itam foofu la wàcce liggéey euh, boroom daal itam Cheikh Ibrahim foofu la génne moom Mbàkke Kajoor jóge dem sañ ci Daarul Muxti ma 1912 maam Cheikh Awa Balla itam foofu la génne 1934 dem sanc Daarul Manaan kon dëkk boobu dëkk la boo xam ne dëkk bu am solo la ci lislaam ci àdd Lat Joor itam en 1886 fekk na Serigne Touba foofu bi muy dem deqale jaar ci moom jox ko boppam mu ñaanal ko e, ci biir loolu nag ci la yoonu mënul juddoo kon foofu la juddoo Serigne bi si Mbàkke Bawol ba sanc sim sanc yëpp إلا لا فعل لا إله إلا الله sëñ bi koy yónni tey ba xaar ba mu demee wax sëñ tey ba yónni ba noppi yendu am kuy dégg mu naa ko sëñ Bamba kooku daal ñu ngi fi ne ko hmm, damaa dégg nga tudd sëñ Bamba comme ni ma sëñ Bamba daa am meneen mu mi fi mi fi man de ki ma yónni sëñ Bamba tudd mën ko ndax mën ngaa fexe baa gis ko waaw su may gont de man man wax nañ ba muy gont fekk na Cheikh eh, Ibrahima jiit ko yoon wi di ko nekk bañ àndee ba agsi mën ko taxal ma wax yónnee eh, bi yëglu la ñu nuyoo sëñ ko ko demaan sax moo ko jëkk wax ne ko ah, ànd nga kenn yëkkam di ko wax ma ne ah, ko am na di ko xam ne bi muy ñëw neen daa bëgg bandi ko fii ko nekk ñu jàll si nekk baax rek ñu doon nuyoo ñu doon def lépp da ko fekk bukk dana defee moom indi beneen doxin bu yes waxee bukk de waa daara ji nañ xamal ñu noonu tam. ba mu àndeek maam Adama ba yegg si ci moom ci sëñ bu mag bi euh, maam Adama da koo dalloo fee mu toog mu agsi ci sëñ bu mag bi. job jox ko yóbban yónneent bi mu ko yónni woon jaaral ko bi muy ñëwee ba noppi nag ci la ko sëñ bu mag bi laaj ndax yow doo nga ànd mu ne waaw sëñ bi laajaat ko ko ba ñetti yoon xelam dem ci ki mu àndoon mu ne ko am na njaay yàlla jun àndaloon de mu ne ko nañ ko gis Cheikh Ibra sëñ maam Adama ñëw wax ko Cheikh Ibra Cheikh Ibra juk waaye maam Cheikh dafa ne bi ma Cheikh Ibra bu mag bi jibril dafa dox ci suma kanam dox suma digg ak seigne adama gi ma tankum ndé jor mu diis ma yëkëti bu chamoy mu diis ma xam kon dañ ma jox ndigalu ram nee ma gis jibril yegg su ram ma ram top bi mu yexé ba ci seigne bu mag bi nuyo ni mu ko nuyoo sujjóot may ma def non sujjóot lam waxante ak seigne bi ah, ñi degg nañ ko ñun ñëpp la ko na jóg bi ko sëñ bi ne luy say yitte mu ne ku ma yeggale ci yàlla laa doon wut mhm. kon moom da doon wut yàlla euh, yàlla xamal ko ne ko sëñ Tuubaa moo yori mbiram mu di ko raas bi mu ko gisee jébbal koy mbiram sëñ Abdou Khadir moo ma xamal ne kenn wax moo wax de moo ma ne gis fa nekk ker ak suba gi fii la soxna Fatou mm, ñu war mu ne ma kër suba gi fi la fi la gën suba euh, kii gis gi kër ngoon gi fi la Seex bi la fekk sëñ bi ci kër ngoon gi boo taxee fi foofu ñu def muy gis nga fa fu mu nekkoon kër ngoon gi muy néew boobee sëñ moom bam ci Seex bi moom fa mu gis sëñ bi la jaayante moom ba sëñ bi wala ñu ne mooy babul muridina moo ubbi buntu boo xam ne euh, donte am na ñu koy euh, jëkk euh, wax aslum tafsid ci lañ wax waaye taxul ñu defee noonu. diiru lam ne nag def na fa juróom benni weer ci koor la fa ñëwoon def fa juróom benni weer kon dana jegew gàmm ci loolu itam ñu ngi wax bi mu jaama jaayanteeg sëñ bi ba wax moom li mu mën a liggéeyee ndax sëñ bi tegtal na ko. ponki lislaam yi ñu wax yëpp waaye Cheikh Ibra da koo dondal xamal ko ne ko loolu newoon na ci te taxul mu yegg kon buñ ne euh, Cheikh Ibra dafay ñëw ñàkk julleem kon da koo indiwaale foofu mhm. ndax dafa xam ne euh, julli yóbbaluwu ko euh, li mu bëgg daal ba ci yàlla du julli may mënu koo cee may mu ñëw ci sëñ bi sëñ bi laaj ko loolu noo yaakaar ne man ko amee mën na ko liggéeyal la ba am sa ngërëm rek mhm. ndax dama faso woon ne ki may bëgg mu yeggale ma ci yàlla daal bu ma ko gisutoon sax te gis bàmmeelam danaa fos ci bàmmeel ba liggéey fa loo xam ne lii dana ma mën a yeggale mm-hmm. sëñ bi wax ko fi pas-pasam toll xamal ko ne ko moom itam day sallallahu alayhi wa sallam mi mu bëgg a liggéeyal bu ko gisutoon te wàcc ci suuf si fekk fi asa asamaan seeg suuf si fekk fi alxuraanul karim bi sëñ wàcc ci yonent bi loolu dina ko doy ba momit lim bëgg liggéeyal yonent bi dana ko liggéey ñu fasante fofu señ bu mag bi ne ko fi lo fi amut ci yow Cheikh Ibra ne ko luma fi amut dafay amut mhm. kon ki bëgg joxe ak ki ki ñaan bu ñu dana dana neex ci biir loolu it bi mu fa fanaanee fajar gu njëkk gi sëñ Abdou net li na ne señ dam Abdourahman moko ko wax moko doon wax señ Euh, Modou Fatma Fall mhm. ne ko kay ma wax la ni Ibra Fall tase sun dara ja bi mu ñëwee fajar bu njëkk gi señ bi danaan def bu fajar jotaan day jog yorub dokkom mhm. fugu ko ci kubéri neegi ye yee fa ne ñu wacc fekk ko ci jakk ji mu jité len ñu julli ñu jullee ba nopi mu teureulal le señ daam neena bi ñu fa dajé fajar gu njëkk gi Cheikh Ibra da ko ne baal doomi jaambur yi ngay tooñ te wax leen li ne fi yow sëñ bi tànqamlu yee ñi mu daan yee rek ñu dem daje ci jàkka ja julli ba noppi mu tëral ci ëllëg sa ñu dajewaat fa sëñ bi di yeete Cheikh Ibra di rondaat waxaat ko kàddu yooyu baal doomi jaambur yi ngay tooñ te wax leen li ne fi yow ba mu ko defee ba ca ñetteeli fan ba nag bi sëñ sëñ daam nee na bi ñu jul bi ñu jullee ba noppi bëgg a yóotu euh, kàggu dem ci kàggu gi di jël téere yi sëñ bi daf ne bàyyi leen fa téere yi ku fi jàng indi woon na nga dem man jàngaleetoo mm-hmm. kon xëy na dëppoon na ak ni ko sëñ Amat Lamine Diop waxe ci irwaanu nadim ne seyd Muhammad sallallahu alayhi wa moo ko feeñu ne ko jàngaleel nit ñi ci leneen lu dul bindu mm-hmm. euh, kon yar leen muy tarbiya mm-hmm. mu ne ku fi mën a toog di def li Cheikh Ibra nga toog fi loolu mooy li fa nekk sëñ Baara Jenn moo ko wax nee na sambaay Cheikh Ibra daf maa wax ne ma ñeenti at la liggéeyal sëñ bu mag bi ñaari at yu njëkk yi nag ni dongo di def ci daara la ko daan def daana root daana taxan daana béy daana gor ni ñuy def ci daara daal la def waye lolou defu ko Mbàkke Kajoor lépp ndax Mbàkke kadior nee len leen ben benn la fa def ak señ bi mhm. ñi ñew Mbàkke bari gi ci mhm. kon li ci des kon diggante Mbàkke Daaru salam Touba lolou def mu ne ñaari at yi la def lolou ñaari at ci des nak leneen lama doon def la leneen lim ko doon def loo Cheikh Ibra wax ko waye mom moom aw ko moom ñun ñëpp moom lañuy ñuy def ku bëgg a baax da ngay roy lu baax Seydina Muhammad sallallahu alayhi mooy roy royukaay bu mag bi sëñ Tuubaa bi mu fi ñëwee moom dong la doon roy ah, ñu bind ci alxuraan jépp nag muy jikko yonent bi loolee la sëñ Tuubaa def Cheikh Ibra Cheikh Ibra bi mu ñëwee loolu la nekke woon ndax yàllaa ko ci def yebal ko boole kook sëñ Tuubaa li ne ci sëñ Tuubaa nit ñi mënuñu koo xam sëñ Tuubaa boole kook Cheikh ne ko boo demee na la wone bu la wanee nit ñi xam la mhm. loolee nag ca la Cheikh Ibra ne woon di jàngale ber bi ni ko alxuraan waxe ne e, saaba yi bu leen duggeeti ci néegu yonent bi te fekk si bu leen ci te wowu leen ci bu leen ko lëng bu leen ko joor yooyu yëpp Cheikh Ibra noonu dong la doon doxe dafa mel ni moom dafa gën a dégg nit ñi alxuraan ñëw di ko jëfe dajanteeg nit ñi di ko jàng moom mu di ko jëfe mhm. waaw loolu moom mooy li nga mooy mooy bëgg a doon murid nag mhm. mooy roy Cheikh Ibra rek mhm. ndax sëñ Basiru mu mu baax bi na allah barakati danaan buy tudd Cheikh da daan murid bu mag ba mhm. kon boog won na ne tegtal ne eh, ku bëgg a doon murid da ngay def ni Cheikh Ibra sëñ Sidi Moxtaar am na fi yàgg te bi mu toogee jataayu sëñ Touba bis bi fa sëñ Cheikh jëmb yal fi yàgg te wer momi tam yegsee and mm-hmm. ak njabootu Cheikh Ibra gi mu andalon bokk na ci lim ko ñëk sas mm-hmm. barab bobé sa mam dajé won ak seigne touba de bëgg na ñu yéssal ak gentam day gën seigne bi nako fas nañ ko yéne amna ndigal nak luñ ñu joxon ci alaaji seigne bara mm-hmm. ñu di moy liggéey kër Cheikh seigne Touba gi ci héliport te àggagutoon sëñ Sidi Moxtaar ne nañ ko yeggale mm-hmm. biñ ko yeggalee ba ren ji mu am lu mu ko ci jébbal mu ne nañu defar fee foofu nag defar bi weesu wutu liggéey barab bi gi gis gi newoon fi Cheikh Ibrahima fekk sëñ Touba muy jàngale mm-hmm. ak daare Mamor Anta Sali ji mm-hmm. foofa loolu itam dañ koy yeesal def ay daara ñuy wax daara moderne yi ndax daara ju mag lay doon góor ak jigéen ñoo fay bokk it jàng euh, ay internat euh, dinañ fa jàngale itam li ñuy wax euh, njàngum métier enseignement professionnel loolu boole nañ ko ci danañ ko fa jàngale danañ dem ba weesu lool sax ndax enseignement professionnel du caaginu ko métier yu tubaab yi rek béyit ci la mi béyit des koy jàng dañ ko daan jàngale ci école franco murit bi mm-hmm. amoon na ci programme bi bi fi sëñ Moussa Mbacke nekkee loolu deneen ko ci boole deneen jàngale loolu itam mu am foo xam ne fii dees na fa jàngale li ñuy wax horticulture euh, boo bëggee greffé ñu jàngal la ko booy yar ay sarde boo ko bëggee def ñu jàng fa ay sardin deneen fa yarit ak jur di yafal li ñuy wax ci geneen wet ga féetee que wetu ko Saalum gi itam danañ fa def kër Cheikh Ibrahima Fall loolu itam sëñ bi dafa bëgg barab ba wéttaliku rek moo tax ñu def fa lool waaw kon uh, loolu mooy sëñ baa ngi ci doon soññe di wax ne Babacar Mbow mu ndéem la ko sëñ bi joxoon mu ne ca waaye woone ci murit yépp nag ndax uh, ginnaaw foofu la murit gi juddoo ah wax dëgg màndargaal ko jaadu na ci ñun màndargaal ko jaadu na ndax ab fàttali la fàttali tax nit ki mën a dem waaw bu ñu fàttee lenn lañ ñu waxoon rek def leneen lu bokkut ak la ñu war a def waaye nag bu ñu ko dundalee te loolu mooy tax mu murit gi gën a ci ndax day mel ni kon murit gi day soog a judduwaat ndax murit gi dafa juddu ci ndaw Cheikh Ibra ñaar fukki ak juróom-ñaar la amoon sëñ bu mag bi fanweer bi ñuy daje kon loolu won na ne ay ndaw a sos kii bi kon ndaw yi itam nañu gën a soññ te xam ne seen wàll ngi ci waaw ñoom rek la sëñ bi di waxal waxut ak ñeneen sëñ moom ndaw yi la am yaakaar ndax ndaw yi ñooy doon ëllëg ay mag waaw bu ndaw yi jubee rek baaxe euh, buñ tàggatoo ci yoon wi rek euh, yoon wi dootul fay ma jóg liggéeyal sëriñ Tuuba te sàkku ngërëm ci barke Cheikh Moustapha sëñ Mouhamadou Bara bi nga xam ne nag moom lañ fay fàttaliku di ko màggalal mu ngi gane àddina fii ci Touba al fi barabu sëriñ bi nekk fi la gënee àddina moom rek ci njabootu sëriñ bi moo gënee àddina foofu ci ci Touba. mi ngi nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci jumaada ula muy rakaati gàmm ci Touba al bi mu gënee àddina sëriñ bi tudde ko sayyidina Muhammadin sallallahu taala alayhi wa sallam wax ci moom lu bari itam yaakaar ñaan wax ni ki nga xam ni ñi bëggoon àgg ci seen boroom ki dagg. jéng yi leen tënkoon agsi euh, ci dëkk bu tedd bii ci Touba nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko sos 1888 euh, su ma jumut bi mu ko sosee ba am ay at yu néew wax nañ ne 1891 wala 90 ci la Cheikh Moudou Lamine Bara gane àddina fii ci dëkk bu tedd bii ci pàkk bu sell bii fi jumaa ji tey foofu ku ne xam ne ne moom moo moo doon kër Cheikhul Khadim këru këru njaboot gi foofu la gën a euh, loolu doon kawteef bu rëy ndax ku ne xam ne dëkk bi ni ko sëriñ bi fonke ak ak ak anam yi ko sose ak circonstance ak condition yi ko sose ak ak cause bi tax mu sos ko ak fa mu tolloon sëriñ bi ci base nag saa ku fi njëkk gan gan gu fi sëriñ Tuubaa njëkk amee loolu ku ne xam ne ne la moo xam ne tawfeex la yoo xam ne la la ca làmboo mën naa daj euh, tawfeex la adduna bépp di saadatim ngir adduna ak alaxiratim boo dem boo dem kuy kuy tànn euh, la ca firnde mooy at boobu mu gënee àdduna fii fekk sëriñ bi jóge na Mbàkke Kajoor ñibbi jaar Mbàkke Bawol euh, ñëw Daaru Salaam ñëw sanc Tuuba ëndaale dongo yi nga xam ne ak taaliba yi nga xam ne noonu laxasaay woon ànd ak moom ngir sàkk ngërëmam ñu sosal liggéey ba ca Mbàkke Kajoor googu ànd ak moom Mbàkke ànd ak moom Daaru Salaam ànd ak moom Touba ku nekk mu sañtal la fi barab ñu daan ko tuuti wetu ndeyjoor ak càmmoñ ak ganaar ak Saalum fu ne mu teg fa ay seex ca mag ñooñu ñu ànd di liggéey bi sàkk ngërëmal ci Sëriñ Touba sàkk nga ngërëmal yàlla ci sëriñ bi bis boobu nga xam ne ci la sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Lamine feeñ ci àddina wala jamono yooyu ndax li gën a précise li gën a wóor mooy nga ne jamono yooyu mën na nekk ci bis bi mën na nekk ci weer yi mën na nekk tam ci at ma waaye loolu loo ci loo ci mën a xaw rek moom ñëw Cheikh Mouhamadou Lamine moo dëppoog wàccug ngërëm ak mag mag mag ñooñu nga xam ne ñoo njëkk jaayante ak Serigne Touba te moo ñoo di as-saabiquuna al-awwaluuna ñu njëkk jaayante Serigne bi ngërëm li ñu am ci ñëw Serigne boobu la dëppoo dëppoo dëppoo na moom ñooñu nga xam ne ñoom laay wooye euh, euh, mooy asaawul himmati ndax keroog bu sëriñ bi wootee ne euh, jox nañ ma ndigal ngeen ngeen ma woote ci himma te bañ a yem yem ci jàngale dong baat boobu dugg ci seen xol mooy mag ña njëkk a nangu laxasaayoo liggéey ñooñu ñooy ñoom laay tuddee ñoom ñooy asxaabul himmati ñooñu nag seen yi yita jooje ak lañ gënoon a am ci àddina lañ gënoon a xayma ci àddina jaayante ngir loolu rek feeñuk seen Cheikh Mouhamadou Lamine Bara bu googu mu dëppoog seen sëriñ bi wax leen ne leen bis ni ko seen mbiram ñëw na kon kooku euh, ak dundam daa ñëw rek àndaale léppam waaw dafa ñëw rek àndaale léppam nag. bi matee jàng itam sëriñ bee ko dalal jàng ba mu jox sëñ Abdourahmane Lo mu am fab diir waaye je melokaanam tax na sëñ Abdourahmane Lo mun ko jàngal mu delloo ko sëriñ bi mu jox ko maam Thierno Ibrahim mu boole ko Cheikh Moustapha ak sëñ Fall waaye jàng na ba mokkal alxuraan waaye nag mu mul woon wax boobu mul woon dégg ni mu doon jàng mooy dañ koy bind rek ci àlluwa mu koy xool ba mokkal ko ñu raxas ko mu bindaat ko ci la xam ne moo ko noonu la defee mokkal alxuraanu karim ba bind ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett jox ko waa juróom Cheikhul Khadim bind na ay téere yu bari itam ci wàllu xam-xam wàllu tasawuf wàllu tawasulaat wàllu fiq wàllu tawxiid wàllu asraar yëpp bind ci ay nga xam ne boo demee ci xasida gi ñu wax mu nawir bundiyaan mi wax te ci tarjumaan ji naa inna allaha yuallimu man yasha bi duni taallumin wala xiraatin bi kitaab suñu borom dina xamal ku ko neex te kooku du jàng du bindul xam naa suñu borom da ko boole ci boppam lay wax waaye lu ci mën dee am moom bokk na ci ñi nga xam ne ginnaaw sëriñ bi li mu bind ci ay ci mbind kenn bind ko ci njabootu sëriñ bi loolu dafa koy wane ne moom dafa bëggoon xam rawatina ci téere bi ñuy wax Saadul Abdar nga xam ne daf def alquranul karim ñaata xisiba ci nekk ñaata sumun ñaata nisif ñaata rubon ñaata ayaat la moo ne ci ci téere boobu ci ci alquran ñaata baat moom ne ci alquran karim ñaata xaraf la ñaata tomb ci nekk ñaata maska ci nekk yëpp suñ baara wax na ko ci wala aaya bu ne fa mu wàcceeg suñu borom jublu loolu ku mokkalul alquran jékkuwoo ko mënuloo ko def ko loolu moo ñuy firndeel ni moom ku jekko alquranul karim la e, bi motee samp kër itam mu sampal ko kër jox ko ku ñuy wax soxna Xari sëñ Mahmoud Jamoy Gaye sëñ Modou Gaye Jamoy moo jur nekk waajuram dal ko yó jëkk yóbbu sànnu si kër ndijaayam waaye mu xat ci moom fa la taawam sax juddoo sëñ Modou sëñ Modou Baara mu ko wax Mahamadul Hafiz xam ne moo jëkk nekk sëtu sëñ Touba foofu la gënee àddina ci sànnu si Touba sànnu si sëñ bi daal di koy woowaat 1913 mu ñëw si fii si Touba sanc loo ko guy mbind mu sanc guy mbind bi mu fi sancee guy mbind ba ba ci mujj ga mu daal di woo Euh, sëñ euh, Amar Fall Mbacke doomu sëñ Ibra nga xam ne moo nekk sëñ Mbacke Kajoor sëñ Ibra rakk la woon ci a Maamoro Anta Sali bi sëriñ Tuubaa di ñibbi Mbacke Bawol da ko woo ngir mu yor daara ji ci Mbacke Kajoor moo jur sëñ Amar Fall Mbacke mu ne ko maa ngi fa bëgg a yebal Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir mu dëkk seeg yéen waaye ko jafe nekkal la sëñ euh, Amar Fall tontu ko ni ko ñun de dinañ mën a nekk ak moom ndax du ñu xëccoo moom dara te lépp lu mu bëgg ñu bàyyi ak moom ci biir nekk fi sëñ nekk ci biir nekk yebal sëñ Baara mu jóge sànn da boo demee na nga daal kër Amar Fall mu sa doomi day na ko waxee ñu ci kër gi ne juróom-ñaari weer am na ko fi ñu ne juróom-benn waaye mat na juróom-ñaari weer ci ñu wax di gën a wér sëñ tam bee àgg mu ne ko dara mosuma fee naqar sama sëñ ci àgg wax nañ ne sax ba mu àgg ñi ko moom ni ko sëñ bi joxoon ndigal tax na daa bëgg ko wax sëñ bi waaye moom ci boppam sax ah, xaw na ko am yar ko wax sëñ bi mu taalu gi dafa rëy daan dugal ci am rek rek nu mu koy waxee jaaxal na ko lii mooy sëñ Thioub maam mooy sëñ Thioub sëñ Baara moo ko Mara ñu bokk benn penc mais léegi lañ ko def ñaari penc ñett benn la woon booba moom mu njëkk bi mooy bu sëñ Bakk Ibra bañ fa taxaw sëñ borom daaru sëñ Amar Fall sëñ Baara ñoo bokk benn picc mag ñi dañoo amoon benn bëgg bu ñu bokk benn benn bëgg-bëgg muy sëñ Tuubaa lu mu leen moom dong lañ gëma nit ñi waaye ñoom yi xew yëpp xewtandoo sëñ Tuubaa daal lu leen koy tax a jege ña nga ca lu ñu yaakaar mu fi am gërëmam ña nga ca nekkin wu rafet woowu nga xam ne moom la sëñ Amar Fall nekkoon si ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara tam waa këram yi nekkin woowu rek lañ nekk ñun ba tey jii noonu rek lañ nekkee ñun rafetal ko loolu kon ñu sant leen gërëm leen ci loolu ci biir loolu itam mu nekk fa moom Cheikh Mouhamadou Bara di jàngale nga xam ni moom lettre yi mu daan bind sax ak cachet yi da ci def si Mouhamadul Amin mu darrisul Qur'an nga xam dafa adressé boobu ni jàngkatu alquran la woon eh, ku bëggoon ab liggéey la itam nga xam loxol boppam daf ci daan liggéey ndax boo demee ci këram dafa defoon benn boutique bu am ay tissu ak machines yu ñaw nga xam ne daa taalibe yëpp ak waa kër gi moom ci boppam moo daan jël tiisi bi dagg ko ci loxoom ñaw ko ci machine bi ñawal ko boppam di leen ko jox loolu dafa am lu muy firnde wane ni nit ku ne rek war nga liggéey waaye kon ci la ñu ni méccam ñaw itam mécc mu barkeel la ku ko am te fonk suñu borom dana la ci barkeel ndax yonent wala nitu yàlla wala wàll yi lépp lu mu laal rek boo gisee yonent yëpp dañu doon sàmm ñi def commerce moo tax ñaar yooyu dara gën kon nag Cheikh Ahmadou Bara nga xam ne téyeer ñëw na képp koo xam ne am nga méccim téyeer nga war ko fonk bu baax ngir barkeeloo ko ci loolu su ma saa bëgg defar ay sàkketi sange moo ko daajal ci loxol boppam itam waaw da ko daan daaj ci moom ci boppam loolu lépp ci oyof la ak bëgg liggéey ak njàmbaar njàmbaar bu nekk jàmbaar bi mu nekkee Mbàkke Kajoor itam ci wàllu liggéey sanc na ay dëkk yu bari fu mel ni Mbarakante muy Tawféex xam ngeen ko sanc na Mbàkke Njokk ci ci la sanc na Mbàkke Baar yi sanc na Daaru Mbàkke ci Touba Kébémer dëkk baa ko fekk si waaye sori woon na kër sëñ Bara gi ci Louga itam digganteem ak Louga amoon na ay kilomètres dëkk baa ko fekk si loolu lépp ak Touba Xellere li tax mu sanc ko dafa daan liggéey di yóbbu sëñ tubaa Touba àddiya ci njaareem bi Seexul Xadim bàyyi ko itam lépp lu mos a liggéey jox na ko Cheikh Moustapha mu def ko ci liggéey jumaa ji ak liggéey gasoraay bi mu nekk ko amuk taalibe itam murid saadix ku lewet ko amoon diplomatie ku bëggoon jokk ak mbokk itam ndax ñi sëriñ bi bokkal ñi bokkal sëriñ bi kenn ku ne kam la tudde jàpp nañ ñi say turno ñi ñi bokk sëñ moo ci mag te amul kum tuddewul doom ci njabootu sëñ Tuubaa gi ñi sëñ bi bokkal euh, Mamadou Anta Sali kenn ku ne tudde na la doom ak jigéen ñaale yëpp daan dox ci Sénégal di yaatal mbokk ci xaadir ak tijaan yi ba ñëpp nekk ay xaritam kon nit la woon koo xam ne moom Cheikh Ahmadou Bara nit ku nite la woon ku amoon yërmande la woon lu safaanoo lu nit ñi wax naan dafa tàngoon ak daf daan alage may wax saa su ne nitu yàlla te ñëw ci àddina ngir alak kenn dafa ñëwoon ngir sowee nit ñi ku daan dox guddi ak bëccëg ku bind sa tànk wala ku bind sa loxo doo faatu ci at moomu xam nga doo alak nit kon Cheikh Amadou Ba nitu yërmande ko lewet la woon koo xam ne fu mas na ci àddina xale yaa ngi ko wër ba yéeg ci kawam muy waxtaan ak ñoom ak soxna yi di ko wër fu mas a dem ku am sa aaj ci di ko di ko di ko laaj ni ñu ko daan laaj yonente bi alayhi salaatu wasalaam eh, kon Cheikh Amadou Ba nit ko amoon yërmande la waaw ko ñoom Euh, suñu borom di leen a boole lu bari ndax ni ko nit ñi wax rek ñoom dañoo bokk waajur wu góor bokk waajur wu jigéen euh, gannaaw ba nga xam ne mook Cheikh Modou Moustapha yàlla boole leen ñaari ñaari waajur yëpp li ma doon wax léegi na la nit ñi dañuy xool rek côté si sëñ Baara boo ko tudd boo ko tuddee rek dañuy wax ne sëñ Baara baatin sëñ Baara dafa tàng sëñ Baara dafa mën mën a ci woon a moom loolu amul. parce que ci dund ci dund société bi gis nañ ni relation yoo yi nga xam ne dëgëroon na lool diggante mag woo magam magam sell ji Cheikh mu Cheikh mu doon Moustapha euh, ku ko considéré woon waaye xam gun xam ne dafa bàtti ne moo taxoon ñu ñu bàyyi woon ko xel waaye joxoon na ko cër cër goo xam ndax ndax ndax sañ baara da ko defoon ab sëriñ dafa koon mag da ko def def ko def ko kilifa lan lan luy war ak yëngatu wala wala ki li kiif te Cheikh Cheikh Moustapha xamu ko woon ci Sëñ Bara lu may gis ne kii rakka rakka rakka la joo xam ne ab taalibe la la ko wan ndax bu ñu liggéey moo cee moo cee man bu ñu joxe moo cee moo cee man loolu lu mat a bàyyi bàyyi bàyyi xel la Sëñ Bara bi mu fi bi mu fi nekk lu ñuy woote ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa ci ci yoon wi ñu ci daan mën la mën la bokk waaw lu mat mat a bàyyi xel la ndax yàlla da ko mayoon nit ñi mu mu am si ñoom pouvoir boo xam ne lu mu leen laaj ñu jox ko jox ko lu lu lu nga jox moo ne ko jox Cheikh Moussa Moussa Moustapha loolu moo tax bàyyi xel la te xam naa lu jara def def def sax ay ay gëstu la liggéeyu jumaa ji ak liggéeyu raay bi loxo Cheikh mu leen Mbàkke da ci am doole loolu loolu loolu loolu moo tax bàyyi xel la du ñàkk yeneen jataay ñu ñu def ci waxtaan waaw waaw ba tey diggante ak ñooñu lu yëpp moom ni mu noonu mu mel ak Cheikh Moustapha jox ko léppam Cheikh Moudou Fadal dama ko jëlale moom dañoo bokk lépp bokk saayir bokk bokk bàtin te cër bu weesuwul euh, Cheikh Moudou Lamine Baara mi nga xam ne moo nekkoon xalifa yi la ñaan mu yokk leeram gis nga moom la ko tëddee su ma jumul xam naa ne mooy ñu war a doon njëkk turandoom bu njëkk sa mag defal la ko kooku jox na la cër sagoon na la euh, def na la ndaw la ñu jot ñu daal seq wàllu xam-xam di seq wàllu lu bare bare bare bare bare digganteem ak Cheikh Amadou Bachir dama ko jëlale moom si sëñ Bachir moo yoroon léppam gannaawam far waaw wax nañ ne keroog bi mu làqu liggéey ba sëñ Bachir dem Mbacke Kajoor toog fa ba ba lépp jeex gannaawam daanaka ñëpp moo leen taxaw góor jigéen ñu ñu ci bari ci njabootu Cheikh Cheikh Amadou lañ baara jigéen ak góor ku ci nekk am na ci ñu bari ñoo xam ne seen làmmiñ ñoom wax na mooy sëñ bi sëñ bi sëñ Bachir moo ñu moo ñu defal lépp noonu ñi ñi nga xam ne ñoom la jot a jamono jamonoon te lan gis nga digganteem ak Cheikh Cheikh Abdou Lahad Cheikh Abdoulahi borom dël moom ñi nga xam ne ñoom la jamonoon te ñëpp ku ci ku ci nekk jëflante naa yow def jëflante nité goo xamante ni nité jo def la ñim ci ñi ko ci mag def def leen seen kilifa ñi mu ci mag da leen a ufoon def def def def leen rakk daanaka mag it am na ñoo xam ne li leen magee xaw ne leen a mën a man mat mat sax wayjur waaye da leen def doom def def def def def def leen doomu doomu sëriñam eh, ak mat kenn ku ci nekk tey témoin nga ci ci moom loo xam ne eh, lu yéema la waaw lu yéema la loo xamante ne bii eh, xaj na temps bi mooy xat duñ ci mën a dugg waaw. kon Cheikh Amadou Bara nit ko amoon yërmande la nga xam ni sëñ Cheikh Sidi Massa wax na ma ni su masaa togg reer bi su masaa noppi li xale yëpp di ndekkee da koy da koy tibb balaa muy séddale reer bi denc leen ko ba noppi ndax yërmande ju mu am ci xale ak bëgg mu am ci ñoom cofeel gu mu am ci ñoom kon kooku nitu yërmande la ko lawet la woon foofu la nekk euh, di fa jaamu suñu borom mu en am ci la génn àddina ñu indi ko Touba euh, kon kooku mooy Cheikh Mouhamadul Baara nekkoon nag nit ku civilisé nit ku setoon la woon waaye taxu ko woon rafet nag <laughs> euh, waaye nit ku civilisé la woon ku ku ku amoon personnalité la ku ànd amoon al li ñuy wax al alhaybatu ak waxaaru al waxaaru ak al bahaul wàcc amoon na ko. kon nag ñu ngi ñaar suñu borom yàlla taas ñu ci barkeem dolli ko leer te yàggal ñu ci ginnaaw bi mu fi jógee itam sëñ du Bara moo ko njëkk a wutu 1936 ba euh, yar xale yi ba ba tax maanaam ñi nga xam ne ay tuut tànk lañu woon mu taxawul leen soxna yi euh, ñi ci war a jàng di jàng ku mën a dem kër mu yóbbu la kër ba 1952 li fi bàyyi ko sëñ Abdou Aziz Bara daal di ko fay wutu moom it yor njaboot gi yërëm leen mu nekk nit ku lewet nit ku yaatu nit ku baax. moom itam daal di defar mbàkke ji lotise ko daal di fay tabax jumaa ji tabax fa mbaar ma def fa ab forage yooyu yëpp suñu si baar moo ko fi def moom it 80 am 1990 ci la génn àddina Cheikh Sidi ko fi wuutu moom it li mu def ñëpp gis nañ ko sëñ Baara amu fi woon kër ci àddina mais fenn fu ne defal na ko fa kër muy Mbàkke Kajoor muy Touba muy Njaareem muy Ndakaaru njabootu sëñ Baara yi itam góor yi jigéen ñi set yi ñëpp la yóbbu Màkka ngir lépp sàkku ci ak àggale yéen i Cheikh moo leen Baara yoo xam ne bëggoon na ko Eh, nekk nit ku yaatal itam koo xam ni suñu waajur la fa woon fab kër gépp teg ko ci loxoom ba loolu sax moo waral eh, ma wutu ko ci loolu sëñ bi ni ko sama doom ji Cheikh Thioro li nga bëgg lépp mën na ko boole maa moom moo waral loolu kon li mu def ci xalis général des mourides noonu la defoon ci xalif bi ñu ko xalif sëñ Baara ngir moom lépp loo xam ni li gën a jafe mooy daraja ak lépp nga fa joxe ko delloo ko moom la def moom Cheikh Sidi Makhtar nekk nit koo xam ne Mbàkke yi mu def na fa ay goudron Euh, yokkaat na làmp yi defaat na fa beneen forage def na fa centre de santé def na fa def na ko commune mu nekk ko mu ngi fay def itam benn centre de formation boo xam ne bu paree ñetti téeméeri xale dinañ fa mën di liggéey ci wàllu ñëw wàllu peinture wàllu menuisier wàllu njàng lépp lañ ko fa def incha allah loolu liggéey yëpp liggéey na mu mu Cheikh di Makhtar ci Mbàkke ñu ñaan yàlla suñu borom guddal fanam damay ko wér li ma waxoon sàng ni nu mu sant waajuram Cheikh Mawlana Bara ñun sant nañ ko noonu dafa siggil Sénégal siggil lislaam siggal yoonu murid siggal kër Cheikh Mouhamed Lamine Bara ndax kiiraayam doxinam melokaanam yërmandeem ak kaaraage goo xam ne ñu koy aar Sénégal di ko aar ñëpp ndax sëñ baal dafay teel a jóge ci at yu yu néew mu doon waar lool am na yoo xam neexut a wax waaye ñu sant yàlla ci lépp sant ko moom ndax lay lay na te yey na moom si Sidi Makhtar euh, tontu na ni tontu na kër gi itam ba tax ba tax tey képp koo xam yaa ngi boog ci kër Cheikh leen Bara mbedd mu la neex jaar ak bopp yëkkati ko kon ñu ngi koy sant moom itam bu mu santee benn ñun sant sant nañ ko fukk ko téeméer di leen sant ci seen taxawaay ak seen pas-pas ci sëriñ bi euh, di leen ñaanal yàlla dimbali leen ba yàlla may leen ay jumtukaay yoo xam ni liggéey bi ngeen fas yéene liggéey sëriñ Tuubaa balaa waxtu bi del si déwén ñëpp dañu xam ne jumtukaay yooyu am ngeen ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru da'waana alhamdulillahi rabbil alamin ku dem fa diiwaan fa piib yàlla ñëpp a nga naan ji lamb dee su fi fel sampub sëriñ baara